émission bi nga xam ne mooy Kouthia Show am na ku ne ci ligne bi allo. allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na nga def. maa ngi sant bu baax. ah tur bi nan la. Firi Gént. Cheikh Diop. Firi Gént. Chéri. Firi Gént laa tudd. ah Chérif. Firi Gént laa tudd Firi Gént allo. ah noo tudd nga ne. waaw. nga ne noo tudd. waaw ah, dama doon laaj. Euh, ah. waa ji dafa doon xëdd. waaw léegi mu teg ginaaram waaw sàq mi sex rek ñu salaatu da nga sex rek ñu salaatu dafa sex rek ñu salaatu may laajte ndax da koy sàq jàllale ko wala da koy yàbbi lan nga sexoon ginaar la sex ginaar ginaar la sex waaw <laughs> dafa sex rek ñu salaatu sex rek ñu salaatu may laajte ndax da koy yàbbi wala da koy jàllale da koy log ah da koy log ba ñu wari waaw beneen question bi mooy dafa am benn ustaas waaw boo xam ne dafa nekk Sénégal di waaraate rek. waaw. mu dem Mauritanie nag ñu tëj ko fa. nga ne mu dem mu dem Mauritanie ñu tëj ko. waaw. mu mu ñibbi si waxu ko. Mhm. may laajte lu ci diine daal la kooku am na kor mu kor. ah sëñ bi yow nga baal ma parce que yow ku dañ kumpa nga te koo xam ne ku mën a lijjanti yëfu jaambur nga. yaa ngi ni di lijjanti koo xam ne dafa sax ginaaram ñu salaatu mu daal di koy yàbbi wala way laaj la la war a def te du yow. ñu ne déet na waaye ngay dugg ci ustaas boo xam ne da waale koy gaariwaale gaariwaale weeru koor ku ko def wari nga ko ko deful sax budul weeru koor ay bàkkaar da lay topp rawatina weeru koor jot ngay gaariwaale ustaas bi nga xam ne dafa demoon Mauritanie ñu ne ko rakk tëj ko ca kaso ba mu bañ a yee fitna bi mu ñëwee nettaliwu ko kenn loolu su ko defee c'est parce que dafa xam ne su ko nettalee fitna mun naa jóg ci ñaari dëkk yow mi nga xam ne demoo demoo joxoo paas fekke woo ñu doon dem jàppoo ci bagage yi teeru woo gunge woo ki demoon nga toog tey ci télé bi di woote naan da ngay jéebaane ustaas bi dang koy weer waa ji nga xam ne moo dugg woote léegi te bañ a joxe turam waroon naa joxe turam ndax turam leerul waaye képp koo xam ne xamme nga baatam war a nga xam ko te woote woo ne diw la yaag moom yëpp yéen a bokk atte war ngeen bu dee am na soxna soxnaam wari na bu am na doomam doomam ba bu muy am fukki at ak juróom-ñett lu mu ci woor ba téeméeri at loolu dara du ko ci nangu ay mbokkam ay xaritam fa muy liggéeyee ay collègue am ñoom ñëpp ànd nañu wari ndax waa ji seytaane la waa ji ab yeekatu fitna la kuy gaarewaale oustaz ci weeru koor yaa ngi yee fitna ndax oustaz kenn du ko gaarewaale ci weeru koor <laughs> ñu ànd ak ba tey ci waxtaan gi am na xale bu jigéen boo xam ne ñu naan ko aji beey nekk ci hôpital Dantec kii nag moom dafay bàyyi ba diggante midi jàpp une heure muy envoyé ay message di envoyé ay message naan tey sama kër dëxënu lawbe lay togg tey sama kër damay def lakk mari ne ko yooyu lay def di ko envoyé message ay xaritam naan leen tey koor gi dafa saf bu fekkee ne namm ngeen pigeon wara li nga xam ne moom mooy jus de corossol avec buy ba pare nee na da si def ay glaçons wara mu daal di lay woo téléphone nga tekk mu décroché naan la déggal numéro say ginaar gi moom nag mu ngi tudd Adji di nekk sage femme foofu ca Dantec may xamal ne waa hôpital Dantec yëpp ñoom seen bopp war nañu ndax kii nga xam ne moo nekk ci ñoom di liggéey tey jëf-jëf ju gi nga xam ne ci weeru koor nit waroon ñaawal kenn ci loolu moom mi nga xam ne dafa ràgg sew rucc ndax xam naa ko jigéen la boo xam ne boo ko gisee dafay mel ne nga jël bale taxaw kii am na ku ne ci ligne bi allo. allo waaw. ooyee oustaz. waaw kooku kan la. oustaz man la ma Fatou Mbaye oustaz waaru woo. <laughs> lu xew. man daal damaa jaaxle. lu xew yow kii woorul bëgg ba ma woor. ah. sama waa waaw. dafa woorul ba pare bañ ma woor dafa bëgg a yàq sama koor bi. dafa woorul ba pare bañ nga woor. waaw bëgg a yàq sama koor. yow noo tudd. nee naa la Fatou Mbaye laa tudd. sa waa ji mu tudd. mi ngi tudd Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye ak Fatou waa waaw Babacar fu mu dëkk. Babacar mi ngi dëkk Liberté 6. Liberté 6 yow foo dëkk. man Liberté 5. Liberté 5. waaw kon dara doxul seen diggante 5 ak 6. Eh, dara doxu ci. ma ne dara doxul seen diggante 5 ak 6. ah dara doxu ci de Liberté 5 nga dëkk moom dëkk Liberté 6. daal moom moom xam nga dama am ay tur ya ma ko daan woowee ndeysaan sax. yu mel nan. tur yu daw yaram. yu mel nan. ay bébé chocolat ay chéri d'amour ay mon cœur mon bébé yu demee noonu. nga ne loo ko doon wooyee nga ne. Fatou doon wooyee ay bébé chocolat ay bébé d'amour mon bébé mon cœur xam nga. Uh-huh. léegi nag man koor gi jot xam nga koor gi man dama koy bëgg di ko wax sëñ bi ay alaaji mais moom day bañ. ah day bañ. day bañ ba tudd ci. ah d'accord maa ngi soog a comprendre yow daal da ko doon wax ay bébé d'amour bébé chocolat. koor gi bëgg nga eh, eh, daal nga nga continuer noonu waaw ma continuer ko ci weeru koor gi nga koor gi nee nga boo nee bébé mu séeri wari xam nga ay si nekk sax da ngay <laughs> maa ngi soog a comprendre euh, Fatou Mbaye waaw Fatou nga ne Liberté 5 nga dëkk waaw Fatou Mbaye ak Babacar Ndiaye Liberté 6 waaw Fatou est xam nga ne yow wax dëgg yàlla Fatou yow <laughs> euh, Fatou waaw yow jigéen bu bon nga. ah, ah yow jigéen bu bon nga parce que bébé chocolat. bébé fromage. nga sol punkal bu dee ne euh, Babacar Ndiaye. ta xam naa ne boo ko séenee sikki nga dal ci dënn ba nga ko wooyee bébé chocolat nan ko ay bébé fromage moom tamit mu nangu loolu ba koor gi jot mu commencé bañ ba nga koy wooyee alaaji ak oustaz ak jéem a trompé jéem a naqasaale yow Fatou Mbaye yaag Babacar Ndiaye yëpp yéen a bokk àtte ndax góor dëgg dafa war a nangu ñu koy wooyee alaaji wara a sëñ bi war a ñu koy wooye kilifa gi waaye warul nangu benn yoon ñu naan ko papa bébé mon gouverneur mon cœur sama xol mon étoile yooyu yëpp ay tur la yoo xam ne kuñ ko wooyee sax ba koor gi jot bu fekkee ne yaa ngi koy wuyoo wala ñu envoyé la ko message wari nga yow Fatou Mbaye képp koo xam ne da nga sant Mbaye dëkk Sénégal ci boppam wàññi nga kooram wari na ak képp ku tudd Fatou rawatina dëkk ci liberté 5 Babacar Ndiaye moom wari na ak képp ku tudd Babacar amul Babacar télévision Futur Média amul Babacar beneen ñëpp laa ci boole yemale képp ku tudd Babacar rek wari nga ndax tey Babacar yi dañoo nangu ñu leen di wooyee ay bébé chocolat bébé fromage jaaru xeetu tur yooyu nga xam ne ay naqasaale la te wax dëgg yàlla góor daal ñaari tur la wara a wuyoo sëñ bi war a waaji waaye bu weesoo loolu ay bébé mon gouverneur mon chocolat mon piment ay mon cœur mon piqûre mon avion genre wax yu neex yooyu nga xam ne dafa coqo nga xam ne bu la ko wooyee rek day coqo ba nga coqolee te bu coqee ba coqolee foo muy coqee doo ko xamee wax dëgg yàlla man de bugguma benn yoon ñu may wooye oustaz chocolat wala oustaz gruyère dañ may wooyee alkatami wala abou bilal <laughs> bu fekkee am ne ku ne ci ligne bi amul ku nekk ci ligne bi bi nga xamee ne nag jóge nañ ca fa nga xam ne moom mooy ca xur ga day jaar fi nga xam ne professeur al professeur alxatami taxaw nañu yéen nag fu mu ne nii yéen a ngi waaj egg ci yàqut yi ña nga xam ne ñoom ngeen war a xeexal Sidi Lamine Niass dem ba ci digg bi ne moom dafa yéemu mook Moustapha Gueye ndax nan laa def ba ay mango ay banaana ay koko di génn ci désert bi man daal wax dëgg yàlla borom kéemtaan laa ca la ñu dem ba si yàgg ñu jékki-jékki yàqut yi daal di commencé ñëw yàqut yi commencé ñëw yor ay yor ay ay ay arme yoo xam ne boobu wax dëgg yàlla jullit di seen doole néew na ñu daal dee taxaw jekki jékki ñu taal ab daay jël ab daay taal ko mu nu mel na nga jël ay ñax yu bëri taal ko pour ñi nga xam ne ñoom ñoo war a xeex ak ñoom bu ñëwee duñ leen gis saxaar si daal dee jolli alxatami nañu ci daay gi ngeen war a jaar ci safara si ngeen war a jaar xotti pour jàkkaarloog noon gi nan ngeen di def yéen a ko xam bu fekkee ne seen diine may na leen ak seen xam-xam may na leen ngeen mën a jéggi li nga xam ne moom mooy takk-takk yi <laughs> foofu la ma si dina ñëw soo xel ma ndax mën naa ko boot ndax mën naa ko boot <laughs> Alaaji Moustapha Gueye naan ndax amul ay sapeur pompier nañ ne woote le 18 bu ñu wootee le 18 ñu fay ko am na ku ne ci ligne bi allo. allo Kouthia. allo waaw. na nga def. kooku kan baat bi ci kaw. Kouthia yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg kooku la. waaw maa la woon fan yee. yow la kenn. waaw maa la bëggoon nga jël ma Kouthia sa numéro la soxla. waaw yow la kenn. mën nga jël ci suuf ma wax yow. ma ne la sëñ bi. waaw sëñ bi. waaw yow la kenn balaa ma lay jël ci suuf yow la kenn. waaw dama la soxla xoolal li ma la secret la numéro téléphone dama ko jox. yow yaay góor jigéen bi yow la góor jigéen bi. yow góor jigéen bi génnal émission bi. génnal émission bi coupé ko. déglu ma allo. nga ne. waaw doo ma déglu allo. yoo lay déglu. ah yow xanaa moo bëgg am koor yow oustaz bi waaraat kay ku am ay problème di la ko wax xanaa danga ko ci mën a génn man nee naa dama am problème dama bëgg nga déglu ma. yow lan mooy sa problème. sama problème mooy yow. man na laa la indi lay problème. Eh, yaay problème jamono yi am naa la lay jàkkaarloo dafa lu may yëg. yow yëguloo ci jigéen. yow yëguloo ci jànq ji. yow ngay amul ku dul yëg ku dul ci oustaz ci ponkal mu na yow ngay góor may góor ngay am loo yëg ci man. dama ko yàgg mu seytaane rajim coupé leen ko wayu bi góor jigéen yaa mulku góor jigéen demal allahu seytaane.